Unbelievable. asalaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku département de Rufisque mbokku Sangalkam mbokki commune de Bambilor man la Cissé Ba dëkk Bambilor Ndiassane euh, fii ñu taxaw tey mu nekk tey sama tool ak sama toolu dëkkandooy dëkk Bambilor ak sama toolu frère euh, tool nag yàlla def ñu mom suñu tol depuis si suñu maam yi ba suñu papa yi tool yi nekk ñëw ñëw ci tey suñuy loxo ñun ñuy taxaw tey di wax fi may wax sama ñaari frère ñu ngi sama ginnaaw alaaji ak Ifra defena naa lu ma xam tey si tool yi tey ñoom ñoo ma ko gën a xam ndax tool yi suñuy papa yi ñoo ko suñu maam yi ko moomoon ba suñuy papa yi ba yi loxo ñun nañ tuuti PS fekk nañu aussi nguuru PDS ba yàlla def te ñu fekk tey nguuru président Macky Sall mais li ñu constaté si nguuru président Macky Sall son excellence Macky Sall musuñu ko gis si benn nguur ay xale lañ nag mais ñu ngi bëgg a yàgg ndax mënaas bi nga xamante ne am na si commune de Bambilor ak fudul commune de Bambilor si nguuru Macky Sall rek lañ ko gis mu jaaxal ñu torop dañoo toog nekk suñu kër yi ay vers 14 heures lañ ñëw lañ ma woo ñu ne ma sa tool de bulldozer yi daaneel nañ sa tool yëpp ak sa tool dëkkandoo yi ak sa tool fereer noonu ma daal di daw ñëw fi bi may ñëw fekk maay nekk réunion sax te ba ñu doon réunion aussi lañ doon réunion wàllu suuf la woon ñun ak Xafoor Touré ku ne yaa ku ne mu ngi doge ci wàllu Bambilor suuf Xafoor Touré ak collectif Les Vasés ak Sàmm sa Moomeel loolu lañ doon nekkoon di réunion ñu woo ma ama ama grande surprise ñu ne ma sama sàmmkat bi woo ma jaar fi ne ma sa tool yëpp yow yaa ko jaay wala yaa joxe sa tool ma nekk yëgu mu ne ma daaneel nañ say mango yëpp noonu waa ñi ma bokkaloon réunion ñu ne ma nañ ma xaar mënuma leen xaar parce que bi may ñëw intention bi ma am baaxul parce que dama waxoon tey bu ma fekkee fii nit di terrassé dinaa la rey ma woo gendarmerie ma jël si ma fi ma dem sama kër jël sama arm def ko sama oto mais bi ma gaaree fekk naa sama tool ñu raasi garab yëpp màngo yi citron yi silaan yi yëpp ñu daaneel ko ma indiwaat sama xel ñëwaat ma xam ne man dama naa la perte ñaari yoon samay garab mënu xeex ba samay garab ñëwaat tey ma boom fi doomu aadama dugg si kaso bi damay perte ñaari yoon yàlla suturaal ma sama xel ñëwaat ma daal ñëw fekk leen fii ñuy terrasser man leen arrêté leen li ngeen di def ñu ne ma yaay kan man leen arrêté leen. bi ma ñëwee arrêté borom bulldozer yi fekk daane lañ lépp lale moo fi desoon ñetti garabu màng ñeenti garabu màng yale may jàkkaarloo ak ñag boobu bi ma ñëwee arrêté leen dama leen laaj kan moo leen yebal ngeen def lii ñu ne ma ngañ faal moo ñu yebal ma leen kan mooy ngañ faal ñu ne ma ngañ faal mais doomam moom moo ñu yebal ma ne ko doomu ngañ fal moo leen yebal ngeen ñëw dugg sama tool sans autorisation sans ben indemnisation sans ngeen toog ak man wane ne ma yéen a ma ëpp doole da ngeen nangu sama alal ngeen dugal ay biliser daaneel ñu ne ma jëlal numéro nga woko si bobu merna naa jëlu mu numéro mais ñu nekk fii di wax di expliquer ñu woo ko jox ma ko bi ak mom daf ma man dama soogoon tool bi toolu abandonné la kenn amatul kenn koo xamante ne bii na tool bi lii la ma tontu tool boo xamante yow da fekk ñu nga fekk si ay teen fekk si ay basin fekk ci ay mango fekk ci ay citron fekk si ay xeetu garab bu ne yow nga ne da nga jàpp fekk ci néeg nga daaneel ko nga ne da nga jàpp ne tool bi dañ ko abandonné kon maa ngi lancé son excellence président Macky salla li xew commune de Bambilor war na ci taxaw bu dul loolu dina xëy mu doon benn bomb boo xamante ne dina am fii si Sénégal te si commune de Bambilor lay soxeekoo ngañ Fall jóge fële yore ay milliards dem impôt et domaine dem urbanisme dem cadastre gisee ak sous préfet euh, gisee ak préfet de Rufisque mu ñëw ñu bindal ko ay kayit mu ñëw di ñu doole di ñu néewal doole nangu suñu alal maa ngi wax Fall ma Sénégal weddee nañu nekk témoin discours bi may def Ngagne Fall su ñëwaatee fii wala mu ñëwal fi ay nit yàlla xam ko ay lañ fi fekk man pare nabu bu pur pour dem rëbës maa ngi koy wax Sénégal gépp ñu xam ko sama sama kala la sama jarbaat la sama jarbaat la sama mak moo jur sama taaw pap moom moo ma woo wo moo ma woo mu ne ma Cissé ndax tool bi yow yaa ko jaay mu ngi nii tudd toog mu muy nguuda ma ne bi mu ñëwee fekk ñu saccagé lépp daane lépp kon ñoo ngi ñu ngi lancé appel di wax ne xanaa maire lan lay jëriñ si dëkk euh, chef de village lan lay jëriñ si dëkk chef de quartier lan lay jëriñ si dëkk xanaa boo ñëwee di def li lu mel di nga jaar si mairie bi nga di nga fëgg buntu mairie tey bu doon buntu mairie lañ fëgg mairie ah, commission domaniale dafa am commission domaniale ñaata conseil mairie ñaata conseil commission domaniale ñaata conseil ñoo nekk ci ginnaaw commission domaniale maire ñaata conseil ñoo nekk ci ginnaaw maire suñu ñëwoon fii jaar si mairie bi kon tey balaa ñu ñëw di def lii tey maire dina xam dina lijjanti kan moom moom tool bi parce que chef du village si dëkk bu ñu jaaroon si moom kese waxuma na ñu dem maire ñu dem si mairie bi dinañ xam kan moom moom tool bi mais ay bandi affaire banditisme la te mu ngi dépare impôt domaine encore une fois CADAS domaine préfet de Rufisque maa ngi artu son excellence Macky Sall di wax ni lii nii bu fi ngañ fal tegaatee tànkam te ak man borom tol bi ak ñi fi am luñ fi dégg rek nañ xamné ne nañ ku né xamna na Bambilor tey xale buy sogu juddu sax dégg na turu Xafoor Ture ak ak turu Ngañ fal Bambilor xale buy am sept ans boo nekk Xafoor Touré mu ne mus naa dégg turam ñu koy wax Bambilor xale buy soog a juddu am sept ans huit ans boo nekk Ngañ Faal mu ne dégg naa ko ñuy wax réunion di ko tudd tey ñaar ñi tey ñoom ñooy problème commune de Bambilor ñun nag man ma bokk si benn collectif bu tudd collectif les voisins mu nekk ci Bambilor ma nekk vice président bi maa dem du nekk président collectif bi am na ay quelques membres aussi yu nekk fi léegi bi ñu ko yëgee lañ fi daaw ñëw ku mel ne gànn béy di Ibrahima ñu sama ginnaaw. man li ma jaaxal si nguuru Macky Sall Macky Sall bi muy initier CDC mais colonel Khalifa Diop dañ koy nuyu di ko sant di ko nuyu au passage moom moo piloté woon euh, moom moo piloté woon tey CDC euh, mais amul benn borom tool boo xamante ne tey colonel Khalifa Diop amel na ko àq. parce que fii ku ne loo fi liggéey rek lañu lay seedeel beneen bi si topp Ngagne Fall ñun xaw ma benn privé la boo xamante ne dafa yor ay milliards am dem impôt domaine ñu jaay ko cent hectare baa doole ñun suñu papa bi ñu fiy dëkk di fi béy di fi jëmbat ay garab yi ñu daaneel tey garab mango yi am na garab yoo xamante ne man ñoo ma mag suñuy papa sam papa bi mu koy jëmbat man judduwuma kon nan lay président Macky Sall di xam lu baax loolu def ko en tant que président ki nga xamante ne kenn ëpp ko doole tey ci réew mi. mu initier CDC fay ñëpp ñëpp mu ñëpp mu négocier ñëpp à l'amiable fay leen kon nan la benn waay jóge fële ku tuddu Ngañ Faal ñëw yebal doomam diggu njolloor dimanche diggu njolloor ngeen déglu bu baax dimanche diggu njolloor balaa borom tool bi ñëw fekk daane lañ tool yëpp sama toolu jigéen ak sama tool ak sama toolu frère ak suñuy toolu dëkkandoo ñoo nekk na li te ñoom Oussouka Pa Ousmane ñu raser lépp may laaj ñun ci ban réew lañ nekk réew mi dañoo nekkatul si pays de droit wala ñun dañoo nekkatul si pays boo xamante ne bii dañ dañ dañ di war di di di teg baa doole dañ di dañuy jël euh, alalu baa doole feccilee ko ñoom seen alal baa doole bi def nan tool boo xamante ne ñun baa doole ñun si tool lañ yaakaar béy lañ yaakaar sàmm lañ yaakaar léegi bu ñu ñëwee nangu alal tool yi. amatuñ fuñ sàmm tool yi nga xamante moom lañ dese di si béy ñu ñëw jaay ñu doole indi titre foncier boo xamante ne tappale entre cadastre impôt domaine urbanisme tappale jaar la jaar ko ci préfet de Rufisque ñu ñëw fii di ñu menacer suñu suuf guddi ak bëccëg lu tax ma ne jaar ko ci préfet de Rufisque dama koy wax haut et fort te ma ci dara lu ma ci góobe gar ko lu tax ma koy wax keroog su préfet dafa ñëw suñu tool am ñu ma àndal benn waay mu war fa jël mais su préfet bi mu ñëwee nu mu ñu gisee ak ni mu détermination bi ñu am mu xam ne ñii seen suufu maam la mu ànd ak adjem te avant loolu di xew am na benn waay boo xamante ne mu ngi tudd Zo Bagadi ak koo xamante ne maam Samba jigéen Diop maa ko mu ngi nekk 7 hectares waa Azirut ñoom ñoo ñëw jël toolam ñaari tool yooyu feeñu leen benn impasse ñu toog même pas trois mois kii nga xamante ne tey moom mooy euh, moom mooy euh, sous préfet préfet de Sangalkam ak adjoint préfet ñu ñëw fi mais ñu ngi sant bu baax adjoint préfet de Sangalkam nit ku baax la nit ku daal la bi mu aussi wax nañ ko mu dafa daal di dem parce que moom nee na yëgul waa Azurut bi ñu fiy jël kon ñu ngi koy sante bu baax suñ mbokku séeréer la mais nit ku baax la parce que xamal nañu lu lu bëri lu fiy xew ci àll bi yëgu ko kon sagam nag sous préfet bi nga xamante ne moom moo nekk Sangalkam lu bëri tey bu ñu bu ñu lu bëri tey di xew si sang euh, si commune de Bambilor maire du ko yëg sous préfet di ko yëg dañuy ñëw rek yor seen bulldozer fan la ñuy defee loolu préfet de Rufisque domaine urbanisme cadastre xanaa booy jël toolu jàmbur yi di nga ñëw waxtaan ak ñoom même bu dee da nga leen ëpp doole sax but benn kayitu tappale ndax ay milliards may la ko mais au moins la moindre des choses nga fay borom tool am looleen leen indemniser loolu yàgg nañ ko gis ëpp naa la doole wut naa titre foncier sa kaw délibération damay jël sa suuf mais dinaa la jox ndàmpaay di nga jóg far force loolu ku ne xam nañu yàgg nañ ko gis. la loolu mooy la mondialisation loo xam mënul ñàkk mais lii de tey ñun ñoo ko gisandoo jàpp suñ tool yi terrassé ko lépp maa ngi lancé un appel à son pré son président euh, président de la euh, république monsieur Macky Sall di ko wax ne day ah bu muy falu de am ay kàddu yu mu waxoon mu ne képp koo xamante ne kii am nga sa suuf téye ko bu ma nekkee président dinaa fexe ñëpp am seen titre foncier bopp muy kër muy tool. waaye de si nguuram dañ constaté ay menaces yoo xamante ne mosuñu ko gis PS mosuñu ko gis temps bi Ablaye Wade nekk président de la république ñu koy naxalu nag ñu koy naxalu bu baax di wax nag ñu ngi aatu suñu tool yi nag maa ngi koy wax de en tant que Cissé Ba dama dem gendarmerie fekk fa sama tur turu président Mademba Ndour turu Waly Ndaw turu Sidi Diaw lan moo tax ñun jaay ñu terrain jàmbur jaay ñu 150 mètres carrés jàmbur suñu suuf suuf soo xamante ne. suñuy bàyyi ñoo ko moomoon ñu nekk di ko aar ñu nekk di ko liggéey benn waaye jóge fa la ñëw ne rek koy jël su dee loolu moo tax ñu jël suñu tur yi les responsables ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ay préfet sous préfet ngeen baal ma may tudd sous préfet préfet laay wax bu de ak autorité yoo yu monti doon looloo tax ñuy jaay si gendarmerie nañ xam ne day suñu suuf si ñu bañuñu si dara ba ñu si dara te yàlla xam na ko tey intention bu bon laa amoon tey yàq sama avenir mais dama ñew fekk ñu daané sama tool yépp mais lan lay def duma perte ñaar yoon ma waat sama xel mais ma ngi lancer son euh, son son son excellence président Macky Sall réew mi dé lim fi des bari na bari te té def na amna ay ambition encore si Sénégal problème souci bu ko réglé wul def na problème souf dina xey doon ben bés bo xamante bomb lay doon ci Sénégal lool la am ci ay cadeau lool la doon déclarer mais ma ngi artu di wax ni Fall moom ak doomam bi fi ñëw tey ba bu ñu fi tagaat seen tànk ba lu dul ñu toog ak ñun waxtaan ak ñun loolu laa am ci ay kàddu beneen yoon nag bés bi fi déggee Cissé dee na si toolam wala Cissé rey na ay nit bu Sénégal wax waxuma ko woon maa ngi jël Sénégal yëpp mooy li ñu fas yéenee def mooy suba dina dem indi huissier mu constaté liñ ma yàqal samay voisins aussi ñu yàqal seen tool aussi dinañ indi huissier ñu constaté seen tool loolu lañ fas yéenee def incha allah buñ paree aussi dinañ. jaar fi ñu war a jaar bu soobee yàlla. xew commune Bambilor dafa dafa dafa ñaaw trop ñun ñëpp dañoo terroriser muy képp ku fi yor tool képp ku fi yor poulailler képp ku fi yor terrain boo jëndoon sax boo tëddee doon nelaw ndax lan nit day xëy rek ñëw nee la sa suuf man maa ko moom. léegi nag ma gis ñi yaatu bi ñu yaatu dënn gis nga malgré président li muy wax yëpp ak liñ ko fi yàqal yëpp mu ngi seede seede bu rafet. boo xam ne waa CDC defoon nañ ko fi ak euh, le colonel la kolonel Khalifa jóob jiite woon liggéey boobu donc kooku kay xanaa ku ubbeeku la koo xam ne maamam la fi fekk def fi lu toll lu ëpp téeméeri at fekk fi ba baayam donn suuf si ci maamam moom mu ñëw donn ko ñi ciy liggéey xanaa état du Sénégal su demee ba ne léegi yéen baykat yi te ren ñu ngi naan cent milliards lañ def ci wàllu mbay mi te ñi fi dëkk gisuñu loolu li ñu bëgg rek mooy ñu bàyyi leen rek li ñu moom kon ren tey bu ñëwoon bay jël sa suuf sax na sa res ñu waxtaan ak yow ku dem ba ubbeeku nga am lu bëri loo jël ci moom muy seede seede bu rafet ne ba nga ko dàmpee gis na ci gis na ci boppam donc kooku ubbeeku na lan moo waral lu lu mel nii dimanche 14 heures nga dugg biir toolu jàmbur ravagé nga balaa moo yegg si nga daw dem lii lii yëfu bandi la man la kenn xamul exactement lii ci ci ci lal ci lal la bokk parce que weesu na euh, problème bi mooy ñun ñëpp dañoo dem ba mujj terroriser wu parce que nit ki soit ñu ñëw ci sa tool guddi ànd ak seen i bulldozer ak seen i lampe soit ñu ñëw euh, euh, euh, comme heure yu mel ni digg njolloor mu leer na leen ne kenn nekkul ci tool yi jouru dimanche nga ñëw def jëf ju ñaaw ji balaa nit ki di yegsi nga daw dem ñibbi di wax ne rek le président Macky Sall bërki démb moo ci mujj ñu ngi dégg PM di def seede bu rafet bii ci moom di wax ne iftaar bu bi amoon Masaalikul naan mu ngi koy wax ne seede bu mu mën a seede ci président mooy xool bu rafet la am te képp ku mu gis nga am problème day ñeewantal ci yow day ñëw soit mu partager ak yow problème bi xool nu mu ko fajee bu ko mënul faj aussi mu partager ak yow sa naqar su fekkee président la ñuy wax moo mel noonu bërki démb PM mun a Ndour invité ko muy renouveler discours bu mel noonu ci président waa commune Mbambilor toujours di jooy borom titre yi terroriser leen te ñi fi nekk wax dëgg fa yàlla laajuñu lenn lu dul ñu bàyyi leen ak seen suuf non seulement état bi dafa seetaan wàllum mbay mi ak càmm gi fii bu demee ba nga xam ne léegi nee na ay kër lañ koy def CDC ñëw jël ko man la ñu jox ko keneen mu jënd ko ñëw jël ko ne leen warloo dañ ah, leen jox li ñu warloo ñu dem uti feneen tool ñu dem feneen mais lii moom kenn mënul mënatul xam lan la tudd. li ma siy dolli rek mooy ñu xam ni ay sénégalais lañ ay doomi Bambilor lañ te comme ñi jiitu niñ ko waxee. ndax euh, àdduna moom lépp loo fi gis rek jàpp naa ni xaj bi nga yar sax sa biir kër am na cër boo koy jox ndax bu heure lekkam jotee di nga ko jox mu lekk di nga ko jox mu naan kon jàpp naa ni donc ñii bu yàlla defee donc seeni maamaati maam ba si seeni baay yoroon suuf si donc di ko bay donc garder ko donc ba mu am valeur bi mu am tey boo fiy ñëw donc même bu dee yaa moom que muy état que muy privé même booy ñëw la moindre donc la moindre des choses donc mooy nga toog ak ñoom waxtaan ak ñoom te xam ni suuf si tamit donc yàlla dafa def lu si bari donc dañ ko dagg donc jaay ko ay ay doomu sénégalais ñoo xam ne donc dañoo dajale seen i dërëm seeni i ñaar dërëm ngir lan ngir am dëkkuwaay donc ngir ëllëg seen njaboot am fu ñu mën a nekk kon yooyu yëpp donc nañ koy bàyyi xel te président Macky Sall moo toog fii donc si euh, euh, centre Abdou Diouf y a deux ans si gannaaw ne 95% donc dossiers yi nek bureau yi yëpp affaire foncier la makoy xamal ni ko donc à partir donc d'aujourd'hui donc na xamni waxuma la 95% mais 200% ou wu dossiers yi yëpp donc bureau souf la lu ëpp nag tuuru ñu ngi koy ñaan bu dee yëg na na def ay djégo bu dee ko tamit donc nako donc nako djema jéem donc geussu ba xam problème bi am au niveau de la commune de Il y a beaucoup de problèmes fonciers donc bo xamni donc mi ngi fi gars yi di fi n'importe quelle heure n'importe donc quel moment la plupart autorités yi donc ko wax donc mu ni la j'étais pas au courant li ci gëna bizarre parce que japp naa donc que muy gouverneur que muy préfet que muy sous-préfet ba si donc imam donc bi nga xamni mo moo nekk village yi japp naa donc war nañu mëna a donc bu ñuy déplacé wu donc di fi ñëw ne sa reste que donc ñu informer leen kon donc ñi ngi leen di ñaan rek pour baña guddal ndax li ci gëna am solo donc nit ñi wax nañ ko ndimbal ak yërmande donc la ñuy ñaan président Macky Sall nit ñi sonn nañ te it ñëpp a xam ne donc jamono fi mu toll métti na métti boo xam ne donc nit ñi seen préoccupation yëpp donc mooy fu ñu dugal seen donc pour ñu suturlu kon donc ñi ngi koy ñaan ngir jëmmi yàlla ak jëmmi rasulullah donc na dimbali donc askan wi na dimbali donc doomi Bambilor parce que sonn nañ di wax tamit donc ñi nga xam ne ñoo dëkkee si gox bi mbooloo mooy doole te feebar bi feebar buy wàlle la te képp donc ku toog sa biir kër wala nga toog sa biir ëtt toog ni sama yoon nekku ci na la wóor ni donc même bu si sa yoon nekkul directement sa yoon dina si nekk indirectement parce que am na sa benn mbokk donc bu fi jënd benn 150 mètres pour lan donc pour donc dëkk bëgg ko dëkkee ëllëg kon ëllëg donc jàpp naa ni sa mbokk moomu lu ko laal war na la mën a laal nañu jóg donc booloo te xam mbaju donc euh, kanam borom moo koy fajal boppam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp